bakkan ñuy wax loolu jeexagul jafe-jafe ndox yi dikk jafe ndox yi euh, facture yu cher jamono yii ñu toll nii moom lañ nekk di dund gannaaw jafe-jafe ñàkk ndox mi dañ doon wax ne ndox mi dafay coupé ci gox yu bari ci ndakaaru mu nekkoon jafe-jafe dollee ko ci jafe-jafe yoo xam ne génnaatul ndox it muy lale xew ca caaro yi muy mool yi nga xam ne nii ñu ci bari am na jàngoro ju leen alawtiku jóge ko ci géej gi yooyu yëpp keroog moom lañ dajale woon doon ko waxtaane waaye ba tey jafe-jafe yooyu moom moo nekkaat lu ñuy dund ndax gisuñu ndox waa seen o di nu bëgg ak facture yu seen o ñuy yabaate lañu waa seen o yàlla na message bi topp ca nopp directeur général ba xaw ma tubaab la xaw ma wolof waaye yàlla na message bi tàbbi ci noppam ñu xamal leen ne ñu yabaate lanu ñoom waar seen o ndax fan yi facture yu cher cher la ñu wàccee ci sunu kaw am na sama benn mbokk sëriñ daara téeméeri junne ak ñeen fukk lañ ko indil facture ak yu teg téeméeri junne ak fukk lu teg ba noppi di tappale naan kër gi dafa am fuite ak yu sama benn frère rek sama benn frère mu ngi may wax ne facture trois cent mille lañ ko indil te mook soxnaam jànqam ay quelque njabootam yu mu nekkal njabootam yu bari ñu nga ca daara ci mais boo seetee ñuy nekk ci kër ga yëpp ñooy ñëw di fa yendoog moom ma fa nekk matoñu juróom-ñaari nit ñooy nil ko facture trois cent mille francs seen o ñoo ko def te ñooñu mooy ñenna rek ci ñoo xam ne ni xam naa leen moo tax ma ne ñuy yebaate lanu ñoom waa Sénégal joxuñ ñum ndox ba noppi bëgg ñoo takk euh, bëgg a takk buum ci sunu baat di ñu diri mais dañ leen war a wax arrête nit ñi e lañ ñoon wax naan waaw euh, bu fekkee ne euh, mënuñ ñoo jox ndox kon ñu jël société bi jaay ko tubaab yi yor ko te man ñoo jox ndox moo nu gënal ñu bari loolu lañ doon wax ba Sen'Eau ñu jël SDE ne moom moo ko gérer léegi moom Sen'Eau ñu ñëw di këll këllee sénégalais yi yabaate nañ trop sénégalais yi bari fi mu toll nii fa ñu dëkk mënuñoo am ndox munu naan mënuñoo am ndox munu sangoo xanaa loolu dafa waroon tax factures yi wàññeeku waaye ñu indil nit ay facture yu sept cent mille ak trois cent mile ak yu kenn xamul da waxoon naa ko ci euh, benn waxtaan ca DTV ma ne leen. xëy na luñ ko tuddee seen o la waaye buñ ko tuddee woon sunu o xëy na am o waaye seen o owu ñan la man leen nag seen o sans o sunu o avec o dana koo gënal waaw seen o sans o la ñuy dund ñu waroon a am kon sunu o ndax nu am o kon seen o ñëpp ak naan wooy te dañ leen war a wax wuub boole ci ndax li ngeen di def du dara lu dul arnaque sénégalais senegal rek la ndax munoo wax ne yaa ngi fayee ko sénégalais xaalis bu weex tàll te joxoo leen ndox il faut que ñu dénoncé ko il faut ko ndax am na ñoo xam ne amuñu fu nu waxee te li ma jàmbat nii tey moom la ñuy dund loolu yëpp di delluwaat ci biir jafe yi nga xam ne keroog euh, moom lañ doon waxtaanee yàlla ñu yàlla wallu te ministre bi nga xam ne moo yor wàllu ndox mi defe naa mbay caam la xaw ma wax na ne jafe-jafe yi fii ak 2021 lañ yaakaar mu saafaraw mais taxaw leen ci musaafaraw te ngeen dimbale population bi bu dee seen eau dafa tële tële ngeen sànni ko ca àll ba dem indi ñoo xam ne mën nañoo satisfaire sénégalais cim ndox te seen factures yi yomb waaye seen eau bi ñëwee ba léegi facture yu cher ñuy teg ci suñ kaw ndodd yi ba noppi boole ci ñoo amum ndox mu doy mais ñooñu noonu lee dañoo tële dañoo tële dañoo tële dell delloo sil sax S2 daf koy gën ba tax na loolu noonu le il ñu jàmbatal ko euh, sunu mbokk sénégalais yi nun ñu bokk ci biir ñooñu tax du ma tudd sama facture man it mais ca biir victime yooyu laay duggaale man it ak facture yu cher waaw du ma tudd sama facture somme bi waaye ci biir victime yooyu laay duggaale ak facture yu cher te boo waxee rek ñuy lay di tappale waaw lii yëg laa moo waral facture yu cher dara mënuñoo ñàkk a gisum ndox ba noppi sunu facture yi dëkkee cher il ñu dénoncer ko il faut ñu dénoncer ko su ko defee ministre beeg président ñëpp jot ci ñu jël ci ay matuwaay ngir ñu régler problème bii nii ndax ndox nag wax dëgg ci suufa si yàlla si la nekk defuñu lu dul gas ci biir suuf si dugal seeni appareil effort yañ war a def pour ndox mi di accès ci population bi nañ ko def bu waa facture yi bu seeree sax ñu mën a wax ne ah même bi mu seeree it am nañ ndox satisfaire nañ waaye ay gox a ngi fii ci ndakaaru ay weeri weer a ngi ni gisunum ndox gisunum ndox am na ku ne ma ñun daan nañ am ndox ak si néew sax si yenn heures yi ñu dem gaaw root waaye dañoo far sax gisatuñu ndox mu ne ma toog naa fi mu toll nii ñaari weer ba ñetti weer damay dem rooti sama kër dëkkandoo bi ma jege ñun suñ kër moom gisuñ sax far ndox te kooka këram moo gën a pant tuuti xëy na moo tax ñoom ñuy am ndox loolu na nañu taxaw ci musaafaraw waaw nañu taxaw ci musaafaraw bu ko defee loolu lañ doon wax ci loolu di jaajëfal imaam Alioune si bu baax. ci émission bi weesu ci natt yooyu di tegaloo lañ doon waxtaanee waxoon nañu natt yi nag bu ñu waxtaanee ci côté dellu ci yàlla tamit dañuy waxtaanee ci côté sunu tëralinu àdduna ñi ngi ko dénk.